ñu gis coow li bëri na ci waal yi yaakaar naa loolu du lañ lay wax mais gis nañ ñi nga xam ne dañuy topp waal yi guddeeg bëccëg saaga àdduna ku bëgg ñu dégg sa tur mhm. faaw nga jaar si waal yi mhm. buzz xool caméra bi day may buzz mhm. da koy maye gratuit mais buzz bi baaxu buzz bi même bu baaxul non ana mais ana ana ñu tey mais lii du buzz sax pour man voilà lii du buzz voilà ana ñu tey ñu ngi nungu sun ah, ana ñu tey ana seen téléphone di leen waxee lu bon tey ah, keneen téye ko seen moroomu góor te que problème mooy da ngay nekk te di nga toog foo xam ne sa morom góor ma andi li nga téléphone bi toogal fee tëddal fee nga tëdd fa mais kon kooku bu pare ban Khalifa Rappo laa li muy wax amul fit bu man bu may dem bay wax man dama naan mëneeru mais ay nangam di tudd ay mais loolu tapet moo koy def pour man wax naa ko ci benn émission ni da ngay direct nan leen nan leen nan leen bàyyi ni ñu nekkee rek ni ñu nekkee loolu moo leen war waaye ñun nu ñu nekkee ñun liggéey la ñu xam <laughs> mhm. xëy suba sañ sa ba kontaan mhm. yor suñu rafet yor suñuy ay ay suñu suñu téléphone yu cher mhm. def jalan suñuy bopp ba mu naay takk suñuy seeni or yor suñuy oto ay oto oto ay trois cent cinquante million tabax suñu këru un milliard ah di dox di xeeñ passeport yu cher di dox di génn ah ñi di ñu bëgg di ñu gis te topp ñu kenn waali daal ma wax leen waali daal mooy nit koo xam ne waali du neenum nen ma waxaat leen ko tey ba pare barke Serigne Bamba Mbacke maa ngi lay waxaat tey ji nga xam ko nee ma lan buñ doon saaga waali waa waali sekk fukki at ak juróom du leen faale non moom kay xam naa ne xanaa ñeneen ñi muy waali du leen faale wax dëgg yàlla man mii rek di wax ak yow mais neexul man faale man bu ma six saaga woon tey du faale non dëgg la mais problème mooy du yéen ndax ñoom dañ leen di fay dañ leen leen di fay noo xamee dañ leen fay waaw yow borom bët bu bon boobu kuñ naan xaw ma suba teel xaw ma maxu waaw da ni fay pour ñu wër di génn. mais mais attends attends li nga wax ah wóoruma mais dama gis benn image. waaw euh, Khalifa rappeur di yëkk Sidi joob lu mel ni xamee. mais ma gis benn image xam naa naa ko jox parce sax mu teg ko ñëpp xool ci. ma gis image bi mu dem kër suba teel. musique ma gis image ak photo yi ñu ànd ñoom suba teel ak yooyu mu xëy. di ŋaññi waali di ko saaga. waaw mais kon loolu li nga wax noonu dafa koy bëgg a firndeel kon. dañ leen a jox leen ay kase. kase saaga. waaw kase saaga ñoom kase saaga ñoom kase saaga lañ am. subhanallah danañ ci yàlla musal. waaye ki leen di fay kooku moo war a xam boppam. mais mu ngi lijjanti affaire moo war a am personnalité. moo war a am dignité moo war a nekk mag. Mm-hmm. dem wuti leneen lu mu def. suba teel heure julli laa si xam mag ñi dañ daan yeewu suba teel dem julli ji. ba mm-hmm. nga jël tur suba teel boobu di ko def ay label. kooku foofu la dafa njëkk a toon yàlla. mais mënoon na ko def label sax. mais dafa njëkk a toon yàlla. suba teel li ma si xam mooy mag dañ daan yeewu suba teel. dem ñii dem rooti ñii dem bay tës. Mhm. dem dem dem dem dem def def def dem teg malaanu wësi. te li may wax Soubatel maanaam tur bi. Soubatel dafa barkel mais maanaam kon ni mu ko defee moo moo moo dul defu waay. barkel Serigne Bamba Mbacke maa la wax fii ne du ma yàlla de mais Soubatel du àgg sax fenn du dem fenn man maa la wax tey. du dem fen si àddina parce que dañuy xeexee. du ñu xeexee de si Soubatel waa ji yiwum Soubatel moo respecté wul ay musiciens moo leen bëggul daf leen bëgg di xeexee. dañu bëgg di waaye nag ki ñuy xeexal <laughs> mais pourquoi xeex pourquoi xeex. ba ka la ñuy xeexal. mais moom a jaaxal. ñun ñun ñooy kii xeex kii xeexal dafa baax Wally kenn xamul. kooku de yëguñu sax kooku. yëguñu sax ni moom yaa xeex moom kooku yëguñu sax ñooñu am nañu. ngay xeex muy gën a avancé. mais doo arrêté yëguñu sax kooku kooku ñooñu sax am nañu. woo Abdoulaye Daouda Diallo si saa si. ndeysaan ne ko mais mu ne ko mais mais mais monsieur le ministre. Hmm. la gël la ah. président bi mu bi ko Wally waxee bi ko Wally waxee ne ko. Hmm. liggéey lu bari wax lu tuuti jëf lu bari wax lu tuuti. ndeysaan wax bu daw yaram président dafa xoolaat booy bi. image boobu dama bëgg ngeen seetluwaat ko bu baax dafa am benn kilifa gu ma ko wax mhm. dafa xoolaat booy bu baax a baax mhm. woo Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances mhm. moom moo jege président bi mu ko wooyee dana ko mais mais mais li booy bi wax ni i it sa jël nga li mu wax analyser nga ko président fi ñu toll loolu lay utiliser fi ñu toll dëgg la c'est vrai loolu la du wax joob la affaire du wax ay fii la ak ay affaire du wax ñun deretu faram maarin mooy daw suñu yaram amul beneen deret buy ñëw suñu yaram ci àddina barke yenent bi te maa ngi lay xamal leen mun yàlla dimbalee incha allahu rabbi mhm. xaw ma si biir xaw ma avant koor gi lay doon xaw ma après koor lay doon mhm. mais di nga gis lu garaaw lu extraordinaire lu booy bi job job bu doy waar mhm. teg ko si ruq bis bu ko génnee àdduna day tukki man maa la wax loolu. àdduna di tukki. àdduna di tukki sax mais àdduna si boppam mooy naan tell. Mhm. mu ngi ko jenc génne yi affaire yu doy waar. ndeysaan waale liggéey la xam. li ñuy pare macha allah yaakaar naa waale liggéey la xam waale am na quatre studio. surtout ci musique waale am na quatre studio. am na studio. Mhm. Kaw Saalam am na studio. Mhm. liggéey rek studio Papis Ndiaye. bu jugee studio Papis kër papa am na fa studio. tey lii ma lay wax kër Papis ndeysaan da nga wax studio Papis Ndiaye mën na ñàkk a dem kër studio Papis Ndiaye mais xam moo tax muy def loolu dem kër Papis Ndiaye. gore xam ne kër Papis Ndiaye la woon démb. koo kilifa avant lii. koo koy kilifaam di kilifaam papaam dénk ko muy lépp tey. waaw ah, koo koy kilifaam macha allah tey liñ dëgmal ci Wally bari na. Mhm. gis nañ macha allah mënuñu ko lim tey kon fi la ñuy fanaan mais ñuy gis mu jógee Mbour barki dem la gis nga la am may euh, nuyu passage euh, ki nga xam ne mooy euh, Karamba dinaa ñëw ci moom tuuti Karamba Marade Karamba borom jinne yi gis naa ko si man la njëkk a ñëw waaw si a ñëw merci beaucoup jaajëf si man la njëkk a ñëw ma taxawoon nga ko doon waaw Karamba dafa ñëw si man ne ma man faramaareen la mm-hmm. ma ne ko faramaareen nga may si njaay def ko si mu yëg kaw seen mm-hmm. yàlla ko yàlla dimbali yàlla ko yàlla taxaw mm-hmm. xam-xam bi mu nekk yàlla ko seen borom yokkal mais ku bëgg waale du Karamba kase nag dëgg la ku bëgg waale ñëpp a nga fa ñëpp a nga fa tuuti Karamba ku bëgg waale nga waaw dem na far bak dem fa laa jógee waaw am na lu ma yóbbante ci waali tey wax naa ko Paco te dina waal dina ko dégg. Mhm. ku bëgg waalee ngoogu. waaw sama kanam barke si xam naa si dara. ku bëgg waale ngoogu. xam naa si dara. koo xam ne amul sago ci waal yi. xam naa si dara nag macha allah yàlla may ko sol ko lim ko may. jàng ko fee mu xam-xam bi day def léegi nga gis léegi malade boo mën di andi nu mu toll ak feebar bu am mu faj ko léegi léegi ci tàng kat tàng bi. xam naa si dara te dafa bëgg waali am na lu pare pour waali incha allah. incha allah waaw looy wax si dara. Mhm. Euh, di mbuur boobu ngay wax. Mhm. sunu frère sunu mag ku ñu naan Ahmed Diouf moo ko tëggoon. Ahmed Diouf ndeysaan sama xarit ku baax. léegi Wally dafa doon koo xam ne léegi borom Mbuur dëkk bu muy dem léegi. dafa am dafa am koo xam ne moom la siy àndal. Mhm. ngeen baal ma nag du du du publicité. non yow fi nga bokk waaw Wave dañuy Wave sax xaaral ma foofu. waaw gis naa sax Wave dañuy Wave. waaw. wasaare TV dañuy wéef wasaare TV. waaw di wéef wasaare Dakar midi. waaw di wéef clic Dakar 221. loolu waali wéef léegi moo ne chaque promoteur bu ñëw jël si waali. jeex na wéef day ñëw jël la ànd ak yow si bis bi accompagner la jàppale la. Mm-hmm. ba pare foofu bëri woon ay kilifa yoo xam ne dañoo mhm. làqatu woon mhm. kilifa yoo xam ne bu ma leen waxee fii seeni tur da naa ma déedéet mhm. kilifa yi mbuur yëpp a ngi woon foofu noonu kilifa yi mbuur yëpp yëpp yëpp yëpp a ngi kaw taabul yi ñu daal di teeru booy bi teeru bu rafet yàlla dimbali nañ nag liggéeyante woon nañ stade bi ñu ne stade bi duñ ko joxe ñu daal di dem xaw ma feenee nu mu tudd fañ ko doon defee fu mag foofu daa ko fay def mu doon réussir bu baax may ñii ñaan am na Diouf yàlla na ko yàlla. amiin amiin amiin taxawu ko. ndeysaan ñiy préparé nag. Mhm. Louga bi. Louga ndeysaan bi nag. di nuyu Baye dafa doon loo xam ne. xool mhm. leen waa li mu defati rek. Louga bi da ngeen teg daaru muxti. waaw mu puus bosam teg daaru muxti barki dem ma Njaay bi mu waree jiyee mu da ngeen teg kas rajak da koo mhm. puus tey nag. waaye kii kii kii lan. tey nag dafa am loo xam ne dafa xew eh. te moom laay tëjee. Wally qu'est-ce am loo xam moom laay xew moom laay moom laay wax moom laay tëjee. parce que temps bi waaw. waaw sunu papa yal na ko yàlla xari àjjana. ndeysaan papa Thione yal na ko yàlla yërëm. Mm-hmm. yal na ko yàlla xari àjjana yal na ko yàlla yërëm. li mu liggéey lépp ci àddina yal na ko suñu borom jox. Mm-hmm. fa mu tëdd tey jii yal na doon bànneex bu rëy si moom. Mm-hmm. tey jii la ko ñi ñi di fàttaliku tey. moo tax tey ngeen gis amul benn image bu génn tey si Wally pour mu wane ni day joué ci weekend bi. waaw looloo tax. weekend bi Wally tey dafa off weekend bi dañuy ñaanal sunu kilifa sunu baay sunu papa coon fo mu tëdd yal na ko yàlla xare ajjana yal na ko yàlla xare ajjana yal na yàlla yaatal bàmmeelam yal na ko yàlla xare ajjana yal na yàlla yàlla lépp lu mu liggéey si àddina yal na ko suñu borom jox ak sama baay manit fa mu tëdd moom yàlla na ko yàlla xaare àjjana yëkkati ko yàlla na ko yàlla xaare ñëpp ak mboolem jullit mm-hmm. moo ku nekk ci kaw suuf maa leen di gërëm di leen sant Muniru Faramare nañu nii mm-hmm. Muniru Waly Ballago Seck ngi nii Muniru mi xeexal Waly guddi di xeexal Waly bëccëg kenn moom a ñor muy Waly bëgguma ma Samba bëgguma ma Demba Waly point dégg nga li Muniru wax kenn mooma ñor Wally Ballago Seck Wally point kon tey la ñu amoon tey seen émission tey fii ci teeru bi tey ñu fekkoon benn daanaan maxalla macha allah muy Faramareen de Faramareen muy Muniru borom Thiès yaakaar naa di euh, xarit Wally Ballago Seck di léppam kon la ñu amoon rek ak beneen beneen yoon. te fi ma loosee fi ma nekk moo fi loosee de. moom moo waaw waaw damay def émission mu dama teer bi nga la toog kenn day moom ci réew mi. barke sëñ bi jaajëf.